ak njaboot gi nga àndal nga ñëw nag ci dëkk boo xam ne daara la daara la ñu dénk la daara yi kon sëriñ bi xam na ne sa kër nga ñëw say bokk nga fi fekk di la yóbbante ak sant ci président mi nga xam ne moo la yebal kon sëriñ baa ngi lay sant di la gërëm di xam xamle nag tànk yi la tax a jóg moom da loolu moom mooy yëfi borom dëkk bi ndax ñëw di wax ci lu jëm ci alquranul karim ñëw ci kër sëriñ bi moom kër borom alquran nga ñëw alquran nag mooy téere bi gën a màgg bi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dañ ko war a jàng xam ko li ci nekk ngir ñu man koo jariñoo kon kuy jóg di dox tànk yu jëm ci alquran ñëw nag ci kër Cheikhul Khadim kon ñëw nga fi nga xam ne mooy barab alquran li tax nga bëgg a def itam muy teral koo xam ne dafa mokkal alxuraan di soxna loolu yàgg na fi bi mu fi amee mën nañu wax ne romb na téeméeraat ndax soxna Maymuna Kubra ba mu bindee kaamilum mokkal alxuraan ba bind kaamil jox ko eh, Cheikhuna Alxadim radiyallahu anhu mbégte mi nga xam ne sëriñ bi amoon na ko ci da kawe na njort boobaak léegi bu ñu xooloon at yi romb na téeméeri at kon bu ñu dellu siwaatee ku doomi dëkk bi am loo xam ne lu am solo la ci alxuraan nga war koo teral war caa woo mboolem ña alxuraan loolu kon boo ñëwee dara jaale ko sëriñ bi ak bokki bokkam loolu def nga loo xam ne lu ko mate la lu mu yàlloo la te ñooñu ngay taral nag ñoom yàlla borom bi subhaanahu wa taala nee na ahlul quran hum ahlullaahi wa xaasatu kon dëkk bii nga ñëw di daara ñu dénkal wàllu njàng mi nga fekk fi sëriñ bi loolu bëgg na ci